xaar ku ñu jox dara révision liste yi door na ma ni ku sa carte amul woon vote demal nga dem bindu ci list yi nga mën bindu ndax nga mën voter ku amul carte jógal wuti carte suñu camarades yi ñoo ngi dajaloo fu ne pour jàppale leen ñuy attire attention rek muy commission yiy bindu muy commissariat yiy defar carte que nañu def li nga xam ni moom lañu ñu war def en tout cas les jeunes seront la présent déterminés pour li nga xam ni moo leen war ñu jox leen ko ñaareel bi mooy li nga xam ni ñoo war a saytu élection yi wax nañ ko waxaat ko CNRA ak CSA xaw ma nu mu tudda non Sénat waa ñoom seen mandat du jeex xanaa ah <laughs> damay laajte rek xanaa ñoom seen mandat du jeex et c'est là qui gêne c'est ce qui gêne tout le monde le président yenn saa yi maatay bi dafa ëpp parce que xam na ni mandat yi jeex na pourquoi mu leen fi garder c'est suspect c'est louche et c'est inacceptable pourquoi mu koy def c'est-à-dire wéeratu ko fenn du ci maatay dama ne gaañi lu mu leen jaral nañu koy jaral gis nga wax ji coow li waratul gudd li mu leen jaral na leen ko nañu ko jaral te ñun jaral nañu ko maa ngi leen gërëm leen sant wa